bon maa ngi tudd El Hadj Babacar Diallo di secrétaire général de l'union régional de Thiès syndicat SNTPT tey kàddu yi nga xam ne que ne tey moo ñu tax a jóg di syndicat bi nga xam ne que ni mooy syndicat des travailleurs national muy SNTPT tey ñu ñëw doon ñaxtu ci li nga xam ne que ne tey jii dal nañu ñun travailleurs yi ndaxte boobu ba léegi ñu ngi toog di xool di xayma ci li nga xam ne que ni tey mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a jàppale ci wàllum li nga xam ne moom la ñuy ñaxtu li ñuy ñaxtu nag lu tax ñu di ko ñaxtu dañoo toog ba démb ba la quinze tey travailleurs yi nga xam ne que ni ñoom ñooy les possier au niveau national kenn fayu ko ci sa sa salaire alors yàgg na nag wax dëgg yàlla salaire yi di tàdde mais bii dafa ëpp ndax tey ku toog ba la quinze joto sa salaire ba ci dernier moment ñu koy doog a viré cela veut dire que kon am na lu xew ak boobu nag loolu moo ma tax a jug moo ñu tax a jug aussi ndax tey kenn ku ci nekk ci travailleurs yi tey sa salaire ñu ngi koy réclamer jotuñu ko de un ñi nga war a inscrire seen doom yi amuñu loo nga xam ne moom la ñu war a inscrire ñii ñi ngi leen di génne seen kër yi ñii seen loyer yi aussi la même chose ñu ngi leen di ay jafe beneen bi ci des mooy li gën am importance mooy que ni même seen dundum wàllum kër sax fi mu toll nii jafe na leen fi mu toll nii. te loolu wax dëgg yàlla ñun ngi koy ñaxtu sonn nañ ci te wax dëgg yàlla maar nañ ci aussi donc ci loolu lañ ñëwee di ñaxtu. au niveau national la tey lii ñuy def nii tey jii fii. ci fi nga xam ne mooy direction régionale bu Thiès tey jii ñu ngi koy def au niveau national tey union régionale yëpp li may def nii tey jii ñoom ñëpp ñu ngi koy def tey di ñaxtu li nga xam ne tey moo ñu dal moo leen dal. waaw fekk nañ ko ci situation ñoom xam nañu li nga xam ne tey moom mooy dox ci poste ndax poste foog naa ni patrimoine u euh, sénégalais yi la. donc tey bu fekkoon ni tey pour jàppale leen la woon kon waroon nañ ko mën a def depuis ndax li fi nekkoon tey mën nañu jàpp ni ba léegi tey jii moom moo fi nekk ba léegi. te loolu aussi wax dëgg yàlla ñu koy ñu koy ñu koy ñaxtu ndax am na ci loo xam ne tey jii par exemple lu mel ni tey courrier yi tey bu fekkoon ni tey joxoon nañ ko jox nañ ko poste tey jii poste kër gi dina gën a soxli ko waat bu fekkoon ni aussi tey jii lettres yi ci boppam jël nañ ko delloowaat ko poste tey kër gi dina gën a soxliwaat encore mais tey da ngay gis lu mel ni SDE lu mel ni Senelec lu mel ni Sonatel ñooñu ñëpp dañoo nekk di yóbbu ay lettres te lettres yooyu tey jii poste moo ko yoroon kon tey buñ ko jëloon delloowaat ko poste kon tey lu bon bon kon lii ñu ñaxtu tey bu ñu dal. waaw kilifa yi ñoom ñoo war a mën a jàppale ndax DG bi ñu am nouveau DG la di Maguette kan moom je pense que xam na kër gi yàgg na ci kër gi te maîtriser na kër gi kon tey bu ñu demee ba jël un postier boo xam ne xam na kër gi ñu jox ko te état jàppale ko kër gi du dem fenn pour mu dem fenn il faut que état accompagner ko pour mu permettre mu mën a xam moom su mu jëm. surtout ndax tey exemple laay joxe suñu secrétaire général union nationale. di monsieur Ibrahima Sarr vingt cinq passé bind na la lettre par rapport au ministre de de de de la communication bind na ko lettre mais ba jusqu'à présent amagul benn recours pour lan pour uniquement pour ñu ñëw xool ni ñuy waxtaan ci wàllum kër gi. boobu ba léegi toog amagul. boobu ba léegi toog amagul kon tey lii nga xam ni moom la ñuy ñaxtu bu ci état jàppul je pense que ci programme am boole woon na ci poste mais ba jusqu'à présent gis ñu lenn gis ñu dara un travailleur nag di ñaxtu di toog. di sonn te ñëpp xam nañu ni postiers ay liggéeykat lañu liggéey boobu ñu nga xam ne moom la ñu nekk di ko def kon tey war nañu mën a état jàppale poste pour kër gi gën a soqali ko am secrétaire général union nationale di monsieur Ibrahima Sarr mhm. am na benn réponse boo xam ne ko ni mu ngi koy répondre à Dakar donc ñun lu ñu tax a jóg mooy ñu wax ni état na jàppale poste parce que aussi du ñu toog ba le 14 le quinze ñu xam ne war nañu def sit ñu doog a ñëw di fay suñu salaire au tardivement tardivement tey am na ci ñoo xam ne tey jii waroon nañu ñëw fekke lii mais mënuñu ñëw parce que amuñu koom-koom te ku amul koom-koom mënoo déplacé wu di ñëw waaye normalement ñoom ñëpp parce que région yëpp waroon nañu ñëw tey ji pour teewe lii mais amuñu benn koom-koom am na ci ñoo xam ne ba jusqu'à présent seen virement jàllagul kon ci loolu dañ ciy ñaxtu pour état pour mu jàppale. waaw lii ñu fas yéene def foog naa ne je pense très bien que ni euh, dinañ ko dinañ ko dinañ ko tollantiwaat bu yëf changé wul lu tax ñu koy tollantiwaat mooy que ni parce que boo xoolee ci seen projet. ñoom dañoo waxoon ni tey jii dinañ ci jàppale poste parce que loolu aussi dafa nekk loo xam ne que ni postier bu nekk daf ko gëm parce que situation bi mu doon dund moom moo tax mais tey exemple laa lay jox euh, sëñ Babacar ni tey boo jëloon IPRES ñëw indiwaat ko pos je pense que dina amal importance trop tey nga jëlaat total la même chose nga jëlaat encore militaires indi leen fii encore la même chose kon yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne que lu mën a soxlawaat poste la tey licence nga xam dañuy jël di ko joxe ñu koy jox ku nekk tey mënoon na jaar lu bon bon post mu jaar ci poste poste di ko joxe mais ba jusqu'à présent amuñu ci lenn benn retour boo xam ne tey jii pare mën nañoo jàpp ne lii mën naa soqali poste te je pense que tey c'est le quinze tey le 16 tey boo toogee ba le 16 weer bi xaaj na est-ce que weer bi dina ñëw postes yi dinañu postes yooyu dinañu fay ko wala duñu fay ko est-ce que loolu aussi xamuñu fan la toll. tey setin la dañ ciy dañuy delluwaat ci liggéey bi waaye dañuy xaar ba tey bu ñu toogatee ba le 5. gisuñu dara su boobaa dinañu gën a def loo xam ni lu gën a fort lii la